le président bu Sénégal bu ko neexee gouverner avec une majorité à l'assemblée hostile. Mhm. maanaam moom amul de moo gën a néew député. bien sûr bien sûr. non du koy ay ordonnance sax ordonnance yi parce que ordonnance il faut que ce soit validé après. c'est pas même pas par la procédure des ordonnances. Mhm. c'est que bu dee loi ordinaire la il suffit qu'il demande juste une seconde lecture. Mhm. pour nga obliger am majorité qualifiée. budget bi su la ko joxee. voté woo ko. il le met par décret kenn mënu ko dara en fait la c'est ça le problème il est tellement oui, important que les questions essentielles li ñu waroon def avant 2024 et c'est malheureux et c'était ça le projet de départ s'il y avait pas eu ce ce ce ce ce, ce genre de cheval de Troie du dialogue c'était que avant ñuy bàyyi prochain président bi di hériter de cette constitution là qui mhm. lui donne des pouvoirs comme ni muy def Ousmane Sonko wax naa leen ko Ousmane Sonko tey gagnoon élection ministre yi est-ce que xalaat ngeen di désormais il y a une nouvelle forme de détention qu'on appelle la résidence surveillée sans texte ce que xam yéen a ngi tiit loolu Ousmane Sonko gagné élection ni leen nag li ngeen ma doon def yëpp du ngeen wax je j'applique ça rek directement même chose toj seen oto bu ngeen di dem man leen mukk maa leen di encadré policier ba pare def leen résidence surveillée yéen ak seen famille pendant trois ans ni sans texte menace à trouble à l'ordre public hmm. bi dañ ko waroon a defar avant 2024 Macky Sall c'était ça le la sortie par la grande porte de l'histoire mu ne pare naa mais man gis naa les difficultés liées il faut me équilibrer les pouvoirs tey le président de la République a un droit de vie et de mort gis nga assemblée nationale député bu ñu fal ñu fexe ba éjecté ko parce que <laughs> mais yooyu c'est gravissime et pourtant c'est un héritage qui nous poursuivra après 2024 mm-hmm. mm-hmm. donc le le le l'arme de la constitution entre les mains d'un seul homme qu'on appelle président avec lépp li ko mën a dal comme folie ko te amul garde-fou loolu la waroon def la phase de transition démocratique on devait pas faire du dialogue politique la transition démocratique c'est vrai que aujourd'hui on